asalaamaaleykum mbokk yi ñi nga xam ne yéenay safoo chaîne bi di coow li Buzz HD ginnaaw tey ki nga xam ni mu ngi def buzz bu baax a baax ci réseaux sociaux yi la rawat na ci lenn plateau yi di wéyee ci turu maître Ngagne Demba ture nekk cadre fi nga xam ni moo di Pastef di indi ay idées yu pertinentes ci réew mi di Sénégal rawat na tolluwaay bi nga xam ni gis nañ ko ci réew mi ci politique ci social ak ci domaine boo jël presque. daanaka sax moom miile mu nekk mbir bi nga xam ni gis nañu bu baax taxawaayam ak xeexam élégance am patriotisme foo làmb fi nekk da gis ni mi di mooy autant pour gis ni moom mii beneen taxawaay lay am bu baax beneen politique bu bees lañu gis ni kii di Ousmane Sonko dafa mel ni ay jegeñaale moom la ñu imposé Sénégalais yi ba tax na sax moom mii di usman Sonko tamit gis nañu loolu mu imposé Sénégalais yi proposé nañ ko ba tey Sénégalais yi sax xaw ko cee nawee bëgg ko muy dëgg boobu mën nañ ne gis nañu ay jegeñaaleem loolu la ñu indee bu nekk te loolee sax dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ni moom mi la maître Ngagne Demba Touré defee na ko ci lim réew di Sénégal ak jàngat yi nga xam ne indi na ko. amaru bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas defar am na njëriñ ci ba yàlla ba yonent bi ne laysal kazzaabu man yuslihu bayna naas c'est-à-dire ni mu rëyee ci bàkkaar nga xam ne yonent bi nee na day tax nga am kàccoor kàccoor moo la yóbbu safara hmm. fen daganal nañ ko ci booy defar mais Sénégal médiation bi dafa am ñaari médiation la médiation institutionnelle c'est-à-dire que yi fi état teg pour ñu def médiation tey médiature de la république Sénégal kan on fi un problème dem médiature de la république pour mu régler ko ban problème ngeen que la gis médiature de la république régler ko dans ce pays amul presque la médiation échoué la médiation sociale c'est-à-dire qu'il kilifa dîner. yi ñi qui woowee kilifa La médiation boobu aussi amoon na doole mais léegi dafa échoué il faut oser le dire xam nga tax mu échoué parce que démarche bi ñuy jël moo baaxul démarche bi dafa war a anticipative ñu ngi jëm election mille vingt 2024 réew mi ay charte moo ko tënk charte mi nee na ku aaye ñaari yoon munoo aaye waat ñaari fan ngay aaye fexeel ba ki bëgg koo xam ne ragal nañu ne loolu mun na am te mu leer la bu ne woon man lii du ma ko defati am nañu à 95 pour cent garanti ne fi ñu jëm ay élection yu libre yu paisible lay doon foofu ngay anticiper wax ak ñoom mais pas pas nga ne ko moom nga bàyyi ko mu def lu ko neex bu ay nit taxawee ne du fi am nga doog a ñëw pour def médiation alquran moo jàngale médiation suratul xujuraat wa in taifataani min al muminina qtatalu fa as in taifataani min al muminina qtatalu fa aslihu baynahuma nee na ñaari kuléel su jullit ñi suñu xëccoowee suñu xeexee na ngeen defar seen diggante فإن عادت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ما نمسو أمي koo مم ne moom كوكو يم kooku yéen yéen a war a mànkoo pour gagner goudal guddal violence facteurs yi judiciaire yoon bi nga xam mom lañ fi tek pour man suma amé suma amé sama droit bo xam dañ ko jël mu délo mako parce que lolu constitution bi wax pouvoir judiciaire moy garant des droits et des libertés bu fekkee yoon bobu non mom la askan wi jàpp ne dafa jeng mais yoon moo leen waroon régleel léegi ñoom lu ñuy def ñoom ñoo koy régleel seen bopp c'est-à-dire su ma ñëwee dëkk sama suuf maam ay ati at ñu xëy benn jour benn tubaab jugee fële ñu délibéral ko 20 hectares am na fanaay am na kër muse am na jogo am na dodel nangu samay suuf am na nengaleer ma saisir autorité préfectorale yi aw ma aw ma yoon ma saisir justice ma xëy tey li ma doon bàyyee ñi nar ko nangu def ma ouvrier agricole ci sama tool nga xam ne 3 mois laay liggéey saisonnier chaque jour 1000 francs lañ may jox kooku da nga ko mën a tere ne warul taxaw ci mbedd bi xeex mais dafa war a xeex pour am ay droit am. d' accord mais léegi violence boobu fan la mën a yóbbu réew mi. fi mu mën a ginnaaw taxawaay bi nga xam ni moom mi lee di ngañ dem ba wax na ko ci taxawaay bi nga xam ni moom suñu njiitul réew yi ak ci leen li nga xam ay autorité ci Sénégal nekk ci bànqaas yi am yu kawee ci ñu am ci ñoom yaakaar ak taxawaay bi nga xam ni gis nañu war nañ ko di taxawee ci Sénégal te mu nekk taxawaay yi nga xam ne dañuy gis ni dafay manqué bu baax a baax ci côté religion ak ci côté boo mënta jël gis nañu bu baax kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko amee ko ci mim réew ak jàng waaye rawat na ci côté médiation mu nekk mbir bi nga xam ni ku bëgg wax dëgg dëgg dëgg te ku bëgg a waxal yàlla dëgg xame ni moom mii la di Maître ngañ demb Touré kàddu yi mu yëkkati nii amul lenn loo xam li ñu mën a weddi la ndax kat da dakaa boole sax li ci gën a wóor mooy ay ay ay ayat ani yi nga xam ni indil na ko yooyu leen di abonné fi nga xam ni moo di Thiowli Buzz as ngeen di commentaire ak di partager suñu vidéo ndax kat dina nekk lu ñuy jàppale bu baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh